xamee nga ma man may euh, ki nga xam ne ma àndoon ak benn délégation ñëw di déposer benn lettre mairie bu Dakar Plateau nga wax say nervi ñu noq ñu noq ñu noq ñu ba xotti tubayu coordonnateur u Dakar bu FRAPP te mu tudd aadama Diatta ndax lan dañ doon déposer benn lettre pour yow déposer lettre rek lettre boo xam ne dañ la wax ne avenue Faidherbe nanga ngir yàlla soppi turam bu fekkee xamoo kuy Faidherbe monsieur le maire Alioune Ndoye ministre de l'environnement Faidherbe mooy ki nga xam ne Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla yërëm te mu àndoon ak yéen nee na si juróom-ñetti weer Faidherbe rey na vingt mille sénégalais kooku ngeen tuddee benn avenue damay joxe benn misaal Faidherbe 18 euh, janvier. avril janvier 1855 dafa taal Bokkol mars 1855 12 morts à Marsa et à Oudoumba mars 1855 mu mu rasé Bakel mën naa continuer noonu ay misaal ak ay misaal vingt mille personnes la Faidherbe rey Sénégal pour France samp drapeau wam Sénégal ñu continuer di ko jox tur avenue Faidherbe biir Dakar benn monsieur le ministre de l'environnement comme nag bëggoon ñu recevoir mairie de Dakar Plateau je n'avais pas d'autre choix te xam ne bés du ñàkk fii laa la koy waxee waa Dakar Plateau yëpp xam ne Faidherbe ku bon la woon ngay continuer di langaamu ci Faidherbe d'accord nga téye ko foofu euh, ci benn avenue bu ñuy woowee avenue Louis ba pour ñenn ñi nga xam ne xam naa ne dinañ ma tontu 18 juillet 1800 1864 Faidherbe détruit tous les villages du Bossé du Bossé du Bossé Yabé du fi défendre yaa ngi défendre sa musiba kenn bu wax koo xam ne da doon rey sa maam ñu ne nga jël ñu ne nga jël turam nga bind ko ci sa yaram avenue boobu jox leen ko tur bu leen neex mais bu leen ko woowati Faidherbe monsieur le ministre euh, de l'environnement les sortants de l'école nationale du centre national de formation de Djibelor nee nañ 2020 mu ngi amoon yaa ngeen waroon recruter 60 agents techniques des eaux et forêts ngeen recruter 39 ngeen war a recruter 2021 35 ATEF maanaam agent des techniques agent technique euh, des eaux et forêts ngeen recruter 9 2022 ngeen am quota de recrutement bu 60 agents techniques des eaux et vingt neuf wala trente wala vingt huit ngeen si jël annoncé nga ne war ngeen recruter juróom benn téeméeri agent des eaux et mais agent technique dañoo am problème man ma fekk si leen ci seen problème naka ngeen di amee benn quota mu am ñoo xam ne dañoo génn ci école bi nekk de diplômés sortant de l' école de Djibélor du ngeen leen recruter or il maa la ko laaj yaa ma tontu junni ak ñaar fukk ak ñaar agent ñooy aar. àllu Sénégal yëpp mille vingt deux agent mu am ay sortants de l'école de Djibélor vous ne les recrutez pas les sortants de l'école de Djibélor nee nañ fii laa koy waxee xaw ma ndax dëgg la xam naa di ci indi ay tontu dafa am ay maggu yi ci nekk da ngeen di jaay place yi maanaam yi des yi dangeen koy jaay da ngeen koy séddoo seen biir d'accord di ko jënd di ko jaay ñoom nag ñi nga xam ne ñoom ñooy les sortants diplômés de l'école de Djibélor comme du ñu ay doomu borom barke comme ay doomu béykat lañu doomu ouvrier lañu ñoom ñu toog di seetaan monsieur le ministre loolu foog ñu régler ko ce sont des sénégalais bokkuñu APR bokkuñu benn bokk yaakaar bokkuñu yeewi askan wi bokkuñu wàllu ay sénégalais lañu ñu formé ñu soxla leen. monsieur euh, monsieur le monsieur le ministre euh, un euh, million garab lañu faagaagal ci Casamance ak feneen ak feneen. tey lañu ñu gën a soxla suffisamment d'agents des eaux et forêts forêt classée bu mbaaw tout le monde sait que menacé il faut ñu wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppu état bi fu ñu gis suuf ñu jël te bañ ñu sax laal ay forêt classée nit garab mun na din mun na dund te nit amul waaye nit mënul dund te garab amul nañu sàmm suñu ay garab dafa amoon euh, benn politicien boo xam ne saay buy saay buy commencer discours wala mu koy jeexal day naan delendo Carthago maanaam il faut détruire cartage man damay naan nañu bàyyi sàcc alalu askan wi te dugal ko ci sàmm l'environnement et le climat des Sénégalais je vous remercie. La parole est à notre collègue euh, Sokhna Ba numéro 2 Ahmed.